What was this for? koy yëg. mbégte bànneex kenn du Serigne Touba. ndeysaan. kenn du Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba. Touba jaaraama maam Seera Faal barki Serigne Touba ñu Serigne Touba rek la ñuy barki Serigne Saliou. mais mais Ama Baldé gëj a bëre 5 ans woote tey mu mel ni. ah. Ama gëj a bëre 5 ans tey mbooloo mu toll ni wuy si ko. dégguma li ngay wax tey. Ama Baldé gëj a bëre juróomi at. te tey mbooloo mu tol ni wuy si ko. waaw Ama li muy woote li yo ci gën a ndaw. Ama moom bu wootee ñëpp dañuy ñëw ndax xale yi koo bëgg jox ko a ba doon roi des arènes dëgg du neex Saaliw rek laay topp barke Serigne Touba. bu ma daaneel waay. barke Serigne Saaliw ma taalibe Serigne Saaliw laa. bu ma daaneel waay. Serigne Saaliw rek laay topp. barke Serigne Saaliw Mbacke. ku jar a topp. jëm naa ku jar a topp barke Serigne Saaliw Serigne Saaliw rek laay nooyee. moo newoon jox leen ma ndaw yi ma def ci ñoom la newoon ca mag. moo tax moom leen li nekk ci ndaw ji da koo def ci ndaw yi di jëfee loolu ñu saay suñu xëyee Serigne Saaliw la ñuy gis man saay bu ma xëyee dama gis Serigne Saaliw. ko tuddee looy yëg. <laughs> waaw bari na Serigne man ñi ma xam xam nañ fi jërëjëf Serigne Touba rek Serigne moo tax li lépp am mais kenn du Serigne Saliou Mbacké ah. siyaar naa. Daarus Daarus. Eh, eh. léegi ngi nii borom del bi. ama siyaar naa la. yaa doon ama looy yëg. booy sant yàlla rek alhamdulilah. da ngay dukkat mel ni sa dafa tàng. waa noonu laay Baay Faal daal ba Serigne Touba lañ c'est mais nga ñëpp wuy si la lan lan la def ci yow. waaw sant yàlla rek xam nga moom ànd na moom day sant yàlla. parce que kon lu ma lay wax rek ndig ndigay garabam te ndig moom lu njëkk mooy jox ñëpp cër respect xam na sëgg ñëpp jàmm xam na ànd na loolu parce que ànd na gàtt na gudd na comprendre na dañuy ñaan sant yàlla rek képp ku fi ñëw rek ñoo lay sant bu baax a baax di la gërëm képp ku fi ñëw rek kuñ gis ak kuñ gisul sant nañ leen bu baax baax gërëm leen ba pare di masawu ñëpp coono xam na xam ni nii rek dayo bi nii rek la mën a demee ñooy sant yàlla bu baax a baax. mais mais mais ba tey ba Boy Niang ñëwee ak Eumeu Sène lan nga yëg. waaw dañuy sant rek du doon loo xam ne surprise la suñu parce que nañ ko dañ koy wax di ko wax dañuy leen ñaan rek yàlla na suñu borom defal jàmm en tout cas kontaan naa si surprise bi sant naa yàlla tamit. mais mel ni Ama Baldé Ama Baldé sans la. jant yi dama ci gis ay mbër yoo xam ne dëkkuñu Pikine. jugee ba Géejawaay ñu ci mel ni ay Fils de Balla ay Mbaye Safara ñu bëri gis naa leen. waaw dëgg la kon lu ma lay wax jox cër la rek parce que nit matul man am na loo xam ne des na manqué na si ñoom mun nañ ma ko moo tax rek koo si gis ne dafay sëkk yow jàmm parce que man defuma kenn adversaire parce que xam naa li métier bi ñu nekk nekkul luy kóon day jeex te bu jeexee am na leneen ak leneen lu ñu war a dox kon tu tax ñu yàq suñu suñu diggante kenn képp nag ku ñu gis dañ lay jox cër ñu war a sëkk jàmm dañuy sëkk ñoom jàmm bu boo gisul sëkk ñoo ni jàmm rek xëy na kooku ko bëggul kenn frontière wax dëgg macha allah kontaan na waaw sant nañu yàlla bu baax. jaajëfatee. ayca. Paradise. Paradise. doone. sant yàlla bu loo yëg. lu ma yëg ah, neex na bari na. Ah. waaw te na bëri te bëri na mbooloo tamit. sa diggante ak Ama. sama diggante Ama ah sama papa la baax na ci torop. te am na yëg si man am na yëg si moom ndax sama rakku papa am na ñaanu ndey am na ñaanu baay ndax sama papa moo ko jàngal bëre avant muy gaañu ndax Jules seetaanu ko benn yoon ay magam ay ay magam rakkam ñëpp seetaanuñu ko benn yoon yàlla na ko yàlla jàppale incha allah si si kanam rek. kon kii mooy Gumba bu Ama Baldé raq la ci Jacob Baldé mais buy bëree moom wala Jacob di bële wala Pokola Gumba nan lay yëg. waaw Jacob Baldé ak. Pokola bu ñuy bëree ndax man maay seen mag. lu may yëg man maa ko xam ndax samay rak la ñoo ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo baay ndax ñun ñoo bokk Papa Balde ñoo Sil Balde ñoo bokk Paate ñoo bokk Demba ñoo bokk Ama ñoo ñëpp ba ci Balde Papa Balde yàlla na ko yàlla yërëm xaaree ko àjjana ak Pa Fallay Balde ak ñëpp ñëpp. jërëjëf. <laughs> waa waaw daa mel ni njaago sëñ Fallou la de daa mel ni njaago sëñ la de waaw eh Baye Fall waaw ma jëla pokola jëla pokola jëla pokola pokola la Baye Fall taalibe Bamba baa ngi nii siyaar naa la. wala lépp jàmm. ci loo ne. waaye taw fee xëy. foog tey lu mu yëg. waaye sant ku tedd gi lay sëñ Tuubaa. mel ni yaa ngi constant yi de. waaw noonu la demee ñun ay Baye Fall lañ bilaay. bilaay ay Baye Fall lañ quoi ay réew. mais tey tey Ama woote mu mel ni waaw noonu la mooy borom dëkk bi. waaw mooy borom dëkk bi quoi. léppam sëñ Tuubaa la waaw yaa ma gën a xam cant gi waaw yaa ma gën a xam yaatu na. loolu la demee quoi. mais tey mu woote ay cant macha allah avant ñuy ndogu ñu gis fi Boy Niang gis fi Eumeu sen loolu la la def ci Pokola. waaw loolu la la wax benn la la ñun ñëpp benn on est ensemble ñun ñëpp ñoo far. bilaay di gërëm ñëpp gaan di ñu nekkoon ci tuusi di wax naan Pikine dafa tas xum Baye Fall bi fi teew ku si nekk sa tur ak sa sant ñu ngi lay yi teew fi yëpp ñu ngi leen di béggee ñoom ñëpp amuñu kenn seen fay waaw ndax déplacé ay nit rek yaa ma gën a xam quoi mel ni yaa ngi waaj la waaw day balaa la sept mai le premier mai la ñuy ñaanal Ambroise yàlla na ko yàlla may ndam waaw loolu la ñuy njëkkee ba pare Ambroise yàlla na ko yàlla may ndam. le premier la Ambroise di bëre. waaw Ambroise waaw yàlla na ko yàlla may ndam. le sept Pokola war a ñëw. waaw le sept mai waaw. war a dajeeg bul laal. waaw noonu la demee nag. mais Pokola la moo tax waa Pikine bëgg ko mu taxaw booy wër ko nii. comme Pikine la yaa ma ko war a Baye Fall maa ngi rek yaa ma gën a xam mooy loolu Baye Fall maa ngi rek. mais sànq sànq dama taxaw ak Pape Sarr dama taxaw ak mu ne Eumeu seen sama rakk la Boy Niang sama rakk la Ama sama rakk la mais laa sama mbër la sa diggante ak Pape Sarr lan la. sama père la rek yaa gën a xam yaa nga sonn si ñun rek mais lépp lu si mën a am ñun ay doom Pikine lañ quoi ay doom Pikine lañ quoi barki maam Serap Fall. macha allah billaay. am na solo dinañ la seet suñu yaatal. waaw yaa ma gën a xam. amal jàmm. Trois espoirs.